yéen ñi di seetaan vidéo bi man mi soxna Gédd Diop maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam. jërëjëf yaay booy ñëpp seete nañ ni ndaanaan kullu fadrin nga ci wàllu seet ci li nga xam ne tiim nga ko di layu ak peetaaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 Sénégal bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa Sénégal. Euh, Sénégal maa ngi leen di nuyu man Ousmane Ndiaye nekk fii ci Angleterre maa leen di laaj seen jàmm ak seen jàmm di leen jox seen wàccuwaay di leen siyaar bu wéré wéré wér di leen ñaanal corona bi yàlla na ko yàlla génne ci Sénégal ak lépp li ko wër ñi ci feebar yàlla na leen yàlla wéral ñi ci ñim dalagulit yàlla bu mu leen dal ci barkab Serigne Fallou Mbàkke daa am ay kàddu yu tuuti yu ma bëggoon a yëkkati kàddu yi nag kàdduy jàmm la rek kàdduy yëkkati maanaam samay doléance ci maanaam euh, ambassade yi nga xam ne ñoo ne ci Europe ak li ko wër ni ñuy doxe ni ñuy doxe muy doxin woo nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ñoo tax gouvernement bi jël leen yóbbu leen ci Europe ni ñuy doxee rafetlu wuñ ko rafetlu wuñu ko ndax bu fekkee ab ambassade boobu problème amee ña tax ñu indi la fa duñ la gis ambassade boo xam ne bu bu bu bu bu bu amee buñ lee bu leen bu la président bi def loo dara ci ña tax ñu yóbbu la fa nañ la ko def loo doo ko def kon ambassade yi ci Europe daanaka li may wax rek seen njariñ bariwut ci Europe bariwu fi bariwu fi de tax te li may wax fu wér laa ko teg ndax man maa ngi jamono yi Angleterre laa nekk waaye gis naa fi ay sénégalais yoo xam ne nii même seeni bagage buñ ko amee problème tax dañuy jóg di dem di ko lijjanti ji feneen ak yu demee noonu te ambassade bi moo leen ci waroon a jàppale muy Portugal geenu dëkk Portugal gee nga xamee nii 1988 ba léegi maa ngi fay dem ak ñëw te sama mag laa fa fekkoon nga xam ne 85 la dugg Portugal moom xaw ma 82 kon tey si tey bu fekkente ne corona bi dafa am adduna bépp kenn ku ne di dimbale sa njaboot di dimbale président yépp kenn ku ne di dimbale sa waa réew Angleterre gi nu ne sax étranger yi fi nekk président bi ak gouvernement bi dañ leen di jàppale ci yu bari ba seen fayu luyaa si kër yeeg yu bari am na ci ñoo xam ne seeni luyaa sax dañ koo dañ koo aj ba ba corona bi di jeex waxuma la nag réew mu ndaw mu mel ne Portugal nga xam ne amuñu doole amuñu benn benn moyen tey corona bi dugg fa plus de trois mois et quelque ñu tëj nit ñi ci biir biiri kër nanguwuñ ñu génn nanguwuñ ñu def dara liggéey ñu defuñu dara gouvernement bi yëg ko ba ñewent leen yëkkati ab xaalis jox ko ambassade bi ne ko séddale ko immigré yi nga xam ne ñoo ne ci biir Portugal du dëkk ba mu ko ko joxee ba xaalis ba dikkee lañu waroon a def seet Portugal na mu toll kenn ku ne ci immigré ya fa nekk di sénégalais kenn ku ne la nga ca maanaam bu dee benn cinq euro la sax ñu partagé ko kenn ku ne am ca lam ca war a am waaye defuñu ko ba mu dikkee xaalis bi dañ ko jël ambassade bi ànd ak ña ko neex ci biir dëkk bi ñu jël xaalis bi sédd ña leen neex ña leen neexut ñu ne leen xaalis bi jeex na te teguñu ko fenn fenn lañ ko tegul parce que man mii di wax ak yéen sama mag tey boo dee compté ci Portugal moodu ya fa nekk moodu gu ko fa mag ci ci ci ci jëkk ko faa ñëw amu fa moodu gu ko jëkk taxaw Portugal mbaa nga gën ko faa xam dara amu fa kon bu fekkente ne ni ambassades yi dañ fee nekk ak di ànd ak ñoo xam ne nii ña ñuy àndal du ñu leen wax dëgg te ñooña sax ñoom ñoo ma yem ñoom ñoo ma yem ndax programme bu ñu def dañ ci waxtaan ak ñoom ndax réew Portugal ba ambassade ba du def dara loo xam ne du day woo ña nga xam na ñoo jiite daayirab sañ Tuubaa ba ñoo ko jiite woo leen ca waxtaan ca ak ñoom ñu sottente ca ay xalaat ñoom ci seen bopp ba ñu demee la leen neex la ñu def ndax. ña neex saxe nañ bañ am ña leen neexut amuñu ña leen neexut joxuñu leen ba ci sama mag gii ma leen di wax nii Modou Fall kenn joxu ko man mii tey quatre-vingt-quinze pour cent yi nekk Portugal ñi ma fa jiitu bariwul man waxuma sama bopp ndax man bañ ñu woote ñu ne Portugal ñi fi nekk lañu wax ak ak ak maanaam bu fekkente ne dañ lay jox da ngay ñëw teew ak da ngay laana leen man bu doon dañuy joxe mille sax la ñuy jox mille euro lañuy jox nit ñi sax jëlalu ma dagge bi Angleterre di ñëw Portugal di ko seet di ko di ko di ko lijjanti si parce que xam naa seeni jikko xam naa seeni jikko du xaalis bi moo fi jëkk a ñëw ñu kompaloo lekk ko du xaalis moo jëkk a dugg Portugal ñu ñu bi ànd ak gaaye ko neex ci biir dëkk bi ñu kompaloo ko lekk ko du bii moo ko jëkk bii da cee mujj waaye nag li ñuy def rafetul rafetul rafetul tey rafetul tey du leen jëriñ dara du leen jëriñ dara ndax nit ñi yaakaar naan lay yor seeni kër ak la koy regle du jóge ci gouvernement bi tey yaakaar naa ne lekk sa ñaqu morom yaakaar naa njëriñ li ciy nekk bëriwul ndax ña ko kumaat ña ko daan def ba léegi boo leen seetee ñooñ koy def ñoo leen tane fop nañ ko continuer di ko def waaye lekk loo xam ne ni yaag say morom yéen ko bokk loolu njariñ li dafa bëriw te yaakaar naa ne am na loo xam ne ni buñ ko doon seet ci Portugal am na ñoo xam ne tey bu fa bu fa fukki dërëm génnoon sax yaakaar naa donte bu dee dañuy xaaj dërëm bu ne dañ koy xaaj ca digg ba sax yaakaar naa daañ leen ci sóoraale waaye nag nit ki moom li may wax rek man nga koy ree man nga koy gis di ko kaf ak moom di wax ni fekk na la nga koy yéene bokkut ak la ngay wane ci sa kaw waaye nag man tey ba ma ci waxtaanee sama magit la ma ko wax mooy mu naa ma ne ko fàtte leen fàtteel loolu te xam ñi la bëgg ak ñi la bañ waaw Portugal ñi fi nekk ñi ngay wax ñi ko xam na ñooy joxe xaalis beeg ñañ ko àndal ñuy kompaloo di ko lekk ñëpp kenn defalu la ci un franc defaluñu la dërëm waaw dërëm lañ la defalul comme defaluñ la dara nag seen mbégteeg seen bànneex bul ko xàmmee seen dara bul ko xàmmee bu leen faale ci dara tax du ñu tax sa waa kër di bañ a lekk du ñu tax sa waa kër di bañ a naan te du ñu la man ci dara ba àdduna di tukki ba keroog ngeen di sàngoo suuf du ñu doo leen yërëm ci dara doo leen ñee ci dara kon nag nañu continuer di ko def waaw nañu continuer di lekk seen ñaqi moroom parce que lii ñuy def nii toujours lekk seen ñàkk morom benn yoon laa mas a gisee ab xaalis dugg Portugal président Abdoulaye wadd joxe ko fa ci loxol Cheikh mbay Ndiaye lañ ko xaalis ba bam dikkee Cheikh mbay Ndiaye mañ ko teg ci loxoom dafa woote ab réunion nit ñu dajee toog mun ñu ne ko da ngay ciy dem bee màkk lañ ciy def boo mënee dem mu ne munta dem ñu seet ña nga xam ne ñëpp kenn ku ci nekk war ngaa mën a dem ñu laaj la nga joxe ngànt ñu jox ko aadama Mbeng Adama Mbeng bañ ko ko joxe te Adama Mbeng bañ ko koy jox sax laaju ko dañ koo laaj man ne leen moon bu ngeen ma joxee ma dem mu ñu jox ko lam def seet normal man loolu d'accord naa ci voilà waaye ay njiit ci am réew noonu la ñuy doxe noonu la ñu war di doxe Cheikh Mbaye Ndiaye di dëgg la yàlla na ko yàlla yërëm dolli ko ay leer taaf nu ci barkeem ci barke sañ Fallou mbake waaye nag man day diiran li mu nekk Portugal mosuma jox dërëm nag ci loo xam ne nii ci na maa la jóge mbala ci dara la jóge voilà mustam pour mu leer waaye nag doxin wam doon dox noonee mu ko doon doxale man neex na ma man neex na ma lool ndax daawut xàmmee ma sàmbaag ma dembaag ma jëm feeg ma jëm feeg ñépp la daan yemale waaye nag lii ma gis ñu di ko def tey jii ma di ko dégg rafetul rafetluwuma ko tey man xam naa ne ku ko mën di def yaa ngoog tey lekk leen ko lekk ngeen jël leen xaay bi lekk ba xam ñi ngeen lekk xaay bi wàcc leen dañuy dem ba di leen taxaw di leen yalwaan mbaa ñu taxaw di leen ñee ci dara duñu leen mës a ñee ba adduna di tukk barke sëñ Fallou Mbacké wax na jërëjëf Gamma Kebe loolu rek laa ne woon maa ngi leen koy jottali na ko senegal président Macky Sall ak ña joxe woon xaay ba trente millions ne ko trente millions président Macky Sall mi nga xam ne moo ko yëkkati woon ci keesu gouvernement bi joxe ko. nañ ko xamal na ko senegal gépp xam ne Portugal xaalis ba ba mu fa demee ambassade ba dafa seet ña ko neex mu ñu waxtaan ca seen biir ñu jox ña leen neex ña ca des ñu leen xaalis bi jeex na waaw loolu rek laa bëggoon a jottali ba Sénégal monde bi yépp dégg ko waaw baax na jërëjëf jërëjëf jàmm xéewal waaw kay